kontaan lool sëñ bon Adama Ndiaye kontaan parce que euh, bi ñuy créé Comadame bi léegi ça fait pratiquement deux à trois ans donc daaw jéeg pour woote woon nañ fi ndox waa Comadame yëpp ñëw ñu si daaw mbas mi moo tax defuñu ko ren ñu santaat yàlla bu baax ñu tasewaat fii donc képp xam nañ ne si weeru sell wi ñu nekk ñu ñëw toog fii partagé donc parce que yàlla dafa santaane sax ngeen toog partagé partagé donc xalaat je loolu yàlla moo ñu ko digal ñu boole booleeg xalaat xalaat bu baax pour ñuy doxal dëkk ñu ndogoo ba pare ñu toog réunion xalaat luy luy luy doxal dëkk franchement loolu moo ñu loolu moo ñu fi ñun ñu ngi si woon déjà ñu ngi si ñu doon organiser jeunes ñu ngi doon organiser femmes yi donc li ñu war a def mooy ñëw wuy si si appel président de la République moo ñu sant yéen responsable sant ko madame la présidente sant ko euh, DG Sayar Diop yéen responsable yi dem ngeen dajale jeunes yi ngeen jàppale leen si wàllu liggéey ñun xalaat ñu xalaatal ko ko jox ko ko moom mooy njiitu réew mi franchement ñun si suñu wàllu bopp au niveau de Diourbel dinañ ko tënkal benn kayit tënkal ko benn kayit ne lii mooy nga def jàppale ñu pour jeunes yi mun a am liggéey tamit la même chose adultes la même chose ñun au-delà des jeunes et des femmes on vers les études les études parce que am na adultes yu a jàppale aussi vraiment ñu pérenniser seen liggéey jàpp seen liggéey voilà on va faire une proposition di ñaari affaire moo ñu fi indi donc déjà ñu partager donc waxtaan parce que géejoon nañ gis mbas mi moo ñu tënkoon léegi comme mbas mi kii nañ bëri barrière ni loolu moo tax ñuy daje nii tey ñu defee loolu ba pare ñu dajaloo waxtaan xool nan la ñu organiser waat parce que commencé woon nañ dérouler benn plan d'action mais mbas mi tënka tënkoon ñu moo comme kii nañu libéré nañ ñu tuuti bon on va essayer de respecter les les mesures barrières on va essayer de travailler aussi l'ensemble des mouvements nekk ci ñoom la ñun am na fu ñu bokk déjà il faudrait que loolu ñu préciser ko Benno Bokk Yaakaar mouvance présidentielle lañ bokk loolu moom on se réclame dans la mouvance et est-ce que amuñu la plus grande partie sax d'ailleurs euh, dans la mouvance ñu toog ñu la plus grande ñun loolu nag suñu bëbët mooy ñu dajale ñëpp ñu waxtaan li ñu am jóg li nga xamante ne moom la ñu donc loolu le président de la République bëgg dinañ ko jéem a fekk si loolu mais si kaw ñu ñu ñu déggoo si kàddu